ne liggéeyal sëriñ tuuba ko xam yàlla xam yoneen liggéeyal sëriñ tuuba mbokki julit yi mbokki taalibe yi bu ngeen déggee sëriñ saaliw nger ak jàmbaari sëriñ bamba jëm doon mbàkk ndigal bàyyi ko na fa mu doon jógee ci sëriñ tuuba seex muhammadul muntaxa yàlla na fi yàgg te jaar ci rakkam ju baax ji sëriñ siidi mbàkke moom seriñ tuuba seex abdul ahad mbàkke borom daaray kamin wàcc si ci doomam ju tedd ju baax ji nu lool muy Serigne Seexul Xadim Mbakke moom Serigne Sidi moom Seex Abdul Ahad Mbakke bale su lu mu woote bisum maamam bi bis bu tedd bi nga xam ne si ni bu wootee rek bisub Seex Abdul Ahad Mbakke lay woote ñu ni la sept juillet lay doon tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeri kor waaye nag sëriñ bi mi ngi bàyyiloo xel mbokki taalibe yi siyaare bi nga xam ne si ni bu màggal gi de desee ñaari fan la cinq bi alxames moom la ñuy siyaare nag trois heures na fekk ñëpp ñëw fii ci kër sëñ bi ñu àndandoog sëñ bi àndandoog mbooleem fédération xidmatul xadim fu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mi danañ ñëw ànd ak Serigne Seexul Xadim dem ba ca way juróom bu tedd we nga xam ne mooy Serigne Sidi Mbàkke siyaare ko at bu jot ñu di ko def yàlla nañ ko yàgg def. ñu ngi nuyu mboolem waa xidmatul xadim yëpp di leen soññ seen sama tur di leen soññee si nga xam ne mooy tur Seex Xadim Mbàkke mi nga xam ne moom moo waral màggal gi ñuy woote ci mbirum organisation bi ñu leen di soññ ñoom ñëpp. bu nee ginnaaw suba la màggal gi ñu génn ñoom ñëpp ginnaaw tàkkusaan jëli bagaas yi indi ko fii ci kër sëñ bi te buñ ñëwee ñu ànd ko dal ànd ko yar buñ demee ba nga xam ne ñooy jëm si wàllu siyaare ba kenn ku ne xam ne kuy siyaare sa kilifa kat dañ ci ànd ak dal ànd ceeg yar kon ñu ngi ciy woo mboolem mbooleem xidma yëpp bàyyiwuñ kenn xidma yi nga xam ne ñoo nekk si Touba yëpp ñu ngi leen ciy woo ñu góorgóorlu si organisation bi gën koo def na mu rafete naam ndaaw rafetoon na waaye ñu gën koo def na mu selle woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di woo ñëpp si turu Seexu Xadim Mbàkke nga xam ne tey bu ñee ñeenti fan a def si màggal gi la ñuy jëlee li nga xam ne mooy jumtukaay mooy matériel yi indi ko fii ci kër sëñ bi ñu si woo mboolem daayira xidmatu xadim yëpp yi nga xam ñoo nekk ci gox bi ñu ñëw ànd ak dal ànd ak tey ànd ak yar bu boobaa nag bu ñu demee bay dem ci siyaare bi ñu ànd ak organisation ndax kenn ku ne yaa mën a sa bopp kuy dem seeti kilifa kat da ngay ànd ak dal ànd ak yar bu ko dee boo demee la nga fay sàkk nga mën koo jëli kon ñu ngi woo ñëpp. Ah, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bii ñu leen baaxoo nuyoo ngir wootee bis bu màgg bu tedd di ko wooteel jëmm ju sell di sëriñ Abdoul Ahad Mbacké bis boobu nag mi ngi am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor yi fii ci kër sëriñ Seexul Xadim moom sëriñ Sidim sëriñ Abdoul lañ koy wootee di ci woo mboolem dayre xidmatul xaddiim yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ bi te nekk ci biir Touba ak yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi ak yi nekk bitim réew bàyyiwuñu benn daayira ñu ngi leen ciy soññ taxawaay ba nga xam ne moom lañ daan am ci bis bi nañ ko am na xam ne noonu lañ ko daan amee ba laq ci ngërëmul sëriñ bi bis bi nag dafa aajowoo melo woo xam ne dafa méngoo ak borom bis bi gannaaw ba ñu wootee njàngum alxuraan bi am na doxalin yu ñu fiy doxal yoo xam ne mooy yi nga xam ne mooy nettali ay jaar-jaaram ak leeral ko nit ñi bañ mën a xeeñ xeeñtu moom ci lim daan dox ba man ko caa roy mooy exposition bu am solo bi nga xam ne daan nañ ko fi def buñ ne gannaaw suba la màggal gi dinañ ko fi def ci doxalin wi nga xam ne moom lañ ko amee mooy la vie de et l'œuvre de Serigne Abdoul Ahad Mbacké loolu nag dina fi am ci fànn yoo xam ne ay xerañte dana ca dana ca feeñ ñi ngi sàkku ci mbokk yi taxawaay ba nga xam ne moom lañ ko daan taxawee danañ ko ko taxawee ku fi ñëw mu nemmeeku ko dinañ jaar-jaar yi Serigne Touba yi nga xam ne doon na ko jaar ci dëkk yi ci biir réew mi ak bitim réew tey nag Mbàkke Bari la ñu tànn ngir leeral la nga xam ne moo fa doon xew dana am foofu ci biir exposition ba danañ fa rendre hommage Serigne Bassirou Mbacke ndax jenn doom yi Serigne Touba ju ne ci Serigne Modou Moustapha lañ ko tàmbale woon tey nag mu tombee ak Serigne Bassirou Mbacke moom lañ moom lañ fay rendre hommage ñu ngi leen koy ngi leen ciy soññ bu baax a baax di fàttali it siyaar bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi dina ko def di ànd ak taalibe yi ak soppe yi dëkkandoo yi ak xarit yi ak fu mbokk mën a ne dem siyaara ji way juram sëriñ Sidi mi nga xam ne moo ko digaloon màggal gi te mu am ca taxawaay bu kawee kawe bi nga xam ne ñun ñiy àndak moom xam nañ taxawaay bi mu ci am di leen ci woo yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn am na it kuréel bu am solo boo xam ne moom la ñuy wax Croix-Rouge dañ fi ñëw di def ay dépistage di dimbale mbooloo mi ci di leen seetal ba xam jan tawat la ñuy am kooku Basiru euh, Njaay mii ci hôpital janatu moo ko yore te ñoo ñu it ñi day ñëw seen taxawaay rafetlu nañ ko ràññee nañ ko ñi ngi leen ci woo di waxit ne alxuraan ji ña ko daa yore ñoo ko yore muy sëriñ Moustapha Sylla mi nga xam ne moo ko daa taxaw mbooleem ku jàng ab kaamil tàmbalee ko ci benn ba ci lim bu mën a doon rek sëriñ Moustapha Sylla lañ koy jëbbal mu jébbalaat ko sëriñ bi ñu yóbbu ko ba ca sëriñ Sidi mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Abdoul Ahad Mbacké di leen ci soññ yéen ñëpp xasida it ka saalika naka noonu bàyyiwuñu kenn ba guddi gi it bu ñu ca demee màggal gi day fanaan sëriñ Gana Messere mooy def waxtaan bi sëriñ Saliou Nger dana fa jàng sëriñ Cheikh Mbaye Diouf ak yeneen jàngkat yi nga xam ne ak sëriñ Khadim géey ñooñu ay wëllërey sëñ bi lañ te danañ ci ñëw waaye ñi ngi leen ci woo yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn ak sëriñ Khadim Kewe ñoom ñëpp ku ci ne xam na ne sëriñ bi ay seq na ak ñoom kóllëre goo xam ne dinañ ñëwal sëñ bi ci bis bi. yéen mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci siyaar bi kilifa ak jotaay bi muy sëriñ Seexul Xadim di ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di soññee li nga xam ne si moom fi tax a toog muy màggalu Seex Abdou Lahad di soññ sama mbokk jigéen ñi di soññ mboolem daayira ci koñ bi yëpp ak soxna ci koñ bi yëpp ñu ngi leen di soññ ci li nga xam ne si mooy màggal gi nin ko daan saytoo ak nin ko daan taxawoo li ci ko jiitu muy wàllum set setal bi nga xam ne si ne daana am ci kër gi ñoo leen ciy soññ bu baax a baax di leen soññ ci li nga xam ne si ne mooy xam ne si ne daanan ko amal di jëm fee ci ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi leen ciy soññ bu baax a baax di li nga xam ne si ne mooy wàllu waañ wi taxaw gi ko daan taxaw ak saytu gi ñu ko daan saytu ak li nga xam ne si ne mooy wàllu baas beeg yépp ñu ngi leen ciy soññ di wax ñu amub yar am teggin ci li nga xam ne si ne mooy bisum màggal boobu ñu taxawal ñoo ngi leen di nuyu mbokki jullit yépp rawatina mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu bu baax ci bis bii nga xamee ne moom lañ dëgmal di bisub sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sama yaakaar yi tey ak ëllëg maa ngi ciy woo képp koo xam ne mi ngi dégg sama kàddu wala mu di ma seetaan ñëpp maa ngi leen ciy woo bàyyiwuma kenn ci jàmbaari sëriñ Touba ji nga xamee ne képp kuy murit te yaakaar sëriñ Touba rek ameel nga ko njukkal ngir li mu liggéeyal sëriñ Touba. ak ni mu meloon ci moom ak li mu ko defal dimbali ñu ñun taalibe yi nga xamee ne dañoo won nan lañu war a toppee Serigne tubaa ak nan lañu war a yaakaare jëmm joojee nag ak liggéey liggéey gi mu liggéey Serigne Touba liggéey ko ci yoon wi moom la ñuy waaj bisam ma di ci woon ak képp koo xamee ne mas naa laa lebal te ëmb lu dul bis bii nga ñëw fay si ma ci képp koo xamee ne tamit ëmb loo ma bor borub teew na nga ñëw lebal si ma ci bis bii ndax ëmb bis bis bi ëmb bis bu dug moom te ki ma ciy liggéeyal mooy sama yaakaar yi tey ak ëllëg muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon maa ngi ciy woo njabootu Serigne Touba gépp di ci woo ñi ma bokkal mbool ñi ma bokkal Serigne Madiba Sylla ak ñi ma bokkal Serigne Darou Assane Ndiaye ñëpp maa ngi leen di woo ma kenn képp koo xamee ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ak foo mën a nekk rek tey sama wëllëre walla nga bëgg a fasante man kóllëre nga di taalibe foo man di nekk na nga ñëw wuy ma ci bis bii rawatina nag taalibe yi nga xamee ne seen bunt ci Serigne Touba dañ koo jaaree ci man ñëpp maa ngi leen di woo kenn ku ne lam jàppoon bu ko mënee bàyyi mu bàyyi ko ñëw fekk ànd ak ñun bis bii di bisub Sëñ Abdou di leen fàttali tamit ziar bi nga xamee ne danañ ko di defal sëriñ bi bu ñu nee ginnaaw suba la màggal gi di ci woo képp koo xamee ne bëgg ngaa jariñu rek dugg ci bayitub sëriñ Touba boobee muy wax naa inna lazina ila sarsara xatqa zadwu ziyaarati faaraxu daarini awsara képp ku bëgg a bokk ci bayit woowee da nga ñëw ànd ak ñun ci bi te xam ne la ni nga ko bëggee na ko Serigne Touba bindee woon ci xumaag rafet nañ njort ne da nga ko amee ci ziar bi ndax lu baax rek lañ ci jublu te Serigne Touba rek lañ ci dakk ak ngërëmam. mbokk yi kon bis baa ngi noonu Serigne Cheikhul Khadim Mbacke moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad Mbacke da ngeen lim ko waxee ku ma mosoon a lebal si kaay fay ma ci lan bisub Cheikh Abdou foo jaar moom. waykat ba dani ku bañ a gis jëfam bul ñëw Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ku mu jawoon teel jëfal na la maam maami Serigne Cheikhul xaddi Mbacke moo xotti autoroute bi bibliothèque bi daaray kaamin aynu rahmati université bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Ubaydu Rabihu moo tax sëriñ bi nee na mbooleem mbaakool gépp ñu leen di woo waaye nag duñ fàtte kër Cheikh Daaru Assane Ndiaye di ñaanal nag aji ma Ndiaye sunu yaay ju baax ji ci kër gi yal na yàlla guddal fanam ci barkeb Serigne Touba kër sëñ ma diba si la fàtte wunu kenn Serigne seexlu Khadim Mbacké nee na bisub Cheikh Abdou Lahad Mbacké ngi te Cheikh Abdou Lahad nag ku mu fat doo fanaan bitti Cheikh Abdoulaye Thiébalo ku bëgg gis baax ba ñëwal kër sëñ Cheikhul Khadim Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala